ñi ngi fii tey ci kër sëñ Moustapha Ndiaye alkarim mu sëñ Ahmadou maxtar ñëw tey bokk seeg moom ci màggaluk sëñ Daaru Assane Ndiaye gi di sant yàlla bu baax nag bi mu ñu mayaatee yàgg nañ koo teewe di ko ànd ak moom bi mu ñu mayaatee tey ñu mën koo fekke ànd koog moom waaye nag mu taseek lu ñu ñor te mu dal suñu xel lool ci lépp lu ñuy dugg rekk ñu di ci ànd ak moom ñu jublu nag ci ay élection yoo xam ne yaakaar naa soreetul ci fan yu néew la ñëw sàkku si ci moom ñaan ci barke borom bis bii nga xam ne moom lay màggal ak barke baayam bu baax bee fi jóge bërki demb di sëñ Ahmadou Maxtaar mi nga xam ne amut lu ci moom waaye nag munta leb daa am daa mën a fay bor ndax képp ku ko dénk say mbir waxuma la yow waaye ña nga am sax dañ ci yëg seen bopp kon sëñ bi tey dañoo ñëw fii di sàkku si ci yow sa ñaan ak sa joxe ndigal ndax léegi dégg naa fi ku ne ma ñun ànduñoo kenn sëñ bi lañu àndal kon damay ñaan nga ñaanal ma ci list bii nga xam ne sa jigéen sa xarit sa lépp da cee ne list bi am ndam ci département bi ndax yaakaar naa loolu waxaat sax lay doon pour ñi ko fekkewul woon fekke waaye yaakaar naa list bi sa list la yow ndax yaakaar naa man mii tey nga xam ne maa nekk deuxième position ci list bi ginnaaw yàlla suñu boroom sama dugg si ci bokk gis-gis ci sa loxo la ko yàlla jaarale boobaak tey noppaluwoo ci benn yoon xëy na yàlla yàllaa koy joxe waaye ndam moom kenn du ne amul ndax liste bu parti boo dugg mujj cee dugg nga ne ca parti ba di muñ di xeex di am ndam di xeex di am ndam ba tey ñu ne la parti bi bi ñu investiré suñ tête de bi yow la ca toftal loolu ak sant yàlla la tey ñaan nga ñaanal ma yeneeni ndam yeneeni ndam topp ci di sant bu baax nag sama leader président Pape Diop mi ma may opportunité man mën a nekk ci parti bi ndax man politique dama koo jël muy muy lu ma neex ndax dama koo def ak jaamu yàlla ndax xubbul watan minal imaan te boo bëggee dimbali saw askan faawu nga wax ak ña jiite réew ma loolu moo ñu dugal ci politique waaye du am koom ndax koo xam ne boo toogee am boo doxee am boo jógee di dox dangaa bëgg a jaamu yàlla kon sëñ bi ñi ngi kontaan tey li ñu bëgg a wax lépp xajul ci benn émission li ñu yokk indi daal yàgg nañoo ànd ak yow ci lépp looy def suñu loxoo nga ca ñu ànd kook yow di sa jigéen di sa lépp te récc ci dara ndax ku mën sa nit nga saa yu ñëwee dinañ gis wàccuwaay wi ñu jox ku yàgg ci loxo nag nuñ la téye xam nga ko ñu lay ñaanal nga gudd fan yàgg a teewe cérémonie bi sëñ Daaru Assane Ndiaye bii ndax nag wax dëgg yàlla doonoon nañuy jàmbaar waaye li ñu fekke ci yow ku mën a soññ jàmbaar nga sëñ Touba nag moo ni mel amul tànki ginnaaw tànki kanam rekk la am yàlla na nga ko tànt téeméeri at tañu ànd kook yow suñ xol sedd na lool ci yow sagal nga ñu lool foo toll yaa ngi ñuy siggal lu ñu neex neex na la bëggoo dara lu ñu naqari lu ñu naqari boo ko yégee lañ ca mën lépp danga ko ca def kon list baa ngi nii sëñ bi ñu ngi ci sàkku sa ñaan di ci sàkku sa ndigal nga ñaanal ma ñaanal nag soxna Astu Gaawaan mii moom dalaa bëggal boppam tey këri sëñ Touba yi ñu ko doon xaar ak këri sëñ Daaru Assane yam daan taxaw yëpp da koo bàyyi ñëw fekk si la fii ànd kook ñun moom it mi ngi fasanteeg yow kóllëre bëgg a président Pape Diop tamit kóllëre moom soxna Astou Gawane ñi ngi sant ñi fi teew ñëpp nag ànd ak yow cant gi yow lu waaye def ci yow rek ñun la ko defal. ginnaaw ba nu santee sunu borom julli ci Moustapha alayhi salaam santaat Serigne Touba bu baax tey ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi tànn ko wér. di ko ñaanal sunu bunt ci sëriñ bi di Cheikh Amadou Mokhtar Mbacké ko ñaanal bu baax kilifa yi diine yëpp rek waaye di ñaanal bu baax sunu waajur bu baax bi fi nekkal sëriñ Darou Hassan di sëriñ Abdoul Xaadir yàlla bàyyi ko fi moom it ci bés bu màgg bu tedd bii nga xamante bi ne nii ci lañ doon fàttali ko tey sunu maam ju sell ji di sëriñ Darou Hassan di ko santaat bu baax a baax moom sëriñ Darou ndax yaakaar naa ne tey képp koo xam bokk nga ak njabootam rek gis nga ab liggéeyam moom sëriñ Darou Hassan loolu moom ñëpp teg nañu seen bët kon di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mii dafa ko dindi mu fayal ñu sëriñ Daaru Xasan ki barkeb Cheikhul Khadim man doon liggéeyal xanaa lii des ci kàddu yi rek mooy sant bu baax njabootu président Papa Diop gii fi ñëw euh, ci jël soxna Mariama Touré ak soxna yii mu àndal bu baax sunu mbokk mu baax mii mu àndal soxna Assou Gawane si mii di doomi sëriñ Moustapha si di bokk ci maamam di sëñ bokk ci njabootu sëñ Malick Bassine si ñëpp xam seen histoire diggante moom sëñ muy soñ sëñ Mor ak sëñ malik ñaari jàmbaar yi sëñ Touba yooyee. Eh, di sant bu baax ñi délégation bi nga àndal yëpp ñëw ci màggal gi soxna Ndeye Assoog ñëpp rek eh, man nag damay sant yàlla ndax yow sama njëmban nga maa la maa waxoon président Papa Diop ne ko boole naa la sama njëmbat ku ko suuxat dana jebbi ku ko suuxut dana jebbi loolu mooy li wér ci man kon buñ demee ba tey jii ñu parti bi tànn la jiital la ci soxna yi nga xam ñoo nekk département de Mbacké bi ñuy xëccoo conseil départemental bi eh, bañ toftalee ka jiitu ka jiital liste bi yaa ci topp loolu ak sant yàlla la ci noonu ndax dama xëy bis rek woo la téléphone ne la ci kanam tuuti maa ngi lay woo jox la président Pape Diop nga wax ak moom yaakaar naa noonu laa la ko waxee woon te boobaak léegi lee mu yàgg. nes tuuti ma woo la téléphone ne la am wuyul président Pape Diop ba ma waxee moom ba noppi dama ko wax ne président lii ma lii may lii may wax damaa bëgg président seetaan ko xam la taxoon ma boole ko ak yow. la taxoon ma boole ko ak yow ndax dama ko wax ne kii dama ko war a dimbale te li ma ko bëgg a defal man mënuluma ko sama bopp. kon nag dama dama ko bëgg a teg ci say loxoom ndax mënal na la dara ci dëkk bee du Touba yow it ma bëgg nga mënal ko fa dara loolu mooy sababu ma boole leen yéen ñaar am na yeneen nag yoo xamante bu élection yi jàllee danga nga toogaat fi mokk ndax nag am na loo xamante ni nag des na ci sa jëmm ji te loolu dafa war a am waaw ndax man lu mën a xew rek sama kaw lay dellusiwaat maa jëloon sama responsabilité bopp teg la ci loxo loxoy président Pape Diop. Euh, gis gis naa bu baax a baax a baax leader yi politique yi yëlëf seet si yëpp waaye comme ci mën a doon bu egsee ci yow rek ci man nga man ngay am kilifa yoo xamante bu ñu lay egsee ci yow danga may woo téléphone ne ma sëñ Moustapha diw de damaa woo téléphone ne ma nangam ak nangam am na ci yoo xam ne sax damay mujj sax bëgg ci ànd ak yow nga ne ma sama ngor muyu ma loolu noonu nga ma koy waxee kon nag ngor googu nga xam moom nga àndeek moom it bëgg naa loolu ñoom ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax donte président nag bàyyi na ko xel moom ndax jàpp na teg na la fu mu war a teg ndax looloo war a lii am tey waaye nag dafa am ñoo xamante bi ni nii yàgg ñoom yéen a bokki parti bi yéen ci bokk yem luñ sa kilifa yow bi genn kilifa nga am muy président Pape Diop amoo kilifa amoo benn kilifa nga ci am muy président Pape waaw euh, li ñu ñaan nag mooy lii ngeen di wut ci réew mii ci dëkk bii di département de Mbacké noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Daaru Asan su fekkente wu ni lii moo gën ci Mbacké moo gën ci département bi yéen a gën ci département bi maa ngi ñaan suñu borom ci barkeb sëñ Tuubaa mu jox leen département de Mbacké maa ngi koy ñaan suñu borom waaw loolu daal ñu ngi koy ñaan ndax yow xam naa wér na ma ne ku la ku la ku la jàppale da liggéey ndax koo xamante ni yow ci sam moo moone bopp ngay nga daan demee ba ba nga gisul kenn koo war a dimbale dimbale ko ba nga gisul kenn loo war a def def nga ko ci tàmbalee ko say mbokk tàmbalee ci koñ ba nga dëkk ñëpp naw loolu respecté la kilifa yëpp bàyyi la xel nawloo la dafa la am nawle loolu nag juddu gu rafet a koy waral waaye jikko ju rafet nag moo la couleur sa mbir sa melokaan ba nga mën a jaxasoo ñëpp mën a ànd ñëpp sa jikko ndax léeg-léeg dana judd ci juddu gu rafet lool waaye jikkoom nag yàq ak juddoom waaye ba nga ba la suñu borom tànnalee ay waajur yu baax it sa jikkoy bopp tax nga tax nga mën a nga mën a ànd ak ku ne loolu nag ñi nga àndal di politique bëgg naa rawatina jigéen ñi ñu roy ci sa jëmm ji ndax ku bëgg jëm fenn bu la royee rek dana dana egg fa mu bëgg jëm ndax jàpp nga te delluwa ginnaaw te nit noonu la dama dama def war a am ay principe yoo xam ne day xam ne lii laa ŋànk dama koy dagg waaw bu àdduna sépp mase woon waxit te nga xam ne lii mooy lu baax bul dellu ginnaaw nekk ca dana xam ne dara mooy mooy lu baax loolu mooy li am solo kon nag jërëjëf Touré ñu ngi ñu ngi sant it président Pape Diop bu baax a baax a baax a baax te di ko dënk gën di dénkaat sa jëmm ji bu baax a baax a baax a baax a baax di leen gën a soññ rek yi ñu gën a góorgóorluwaat te xam ne élection yi jëm tamit benn la ci élection yi fi jaaroon rek ak élection yi nekk sunu kanam kon euh, li ma wax nag dama ñaan yàlla dama ne maa ngi ñaan suñu borom kon ñu ñëpp xam na ne yàlla mooy joxe ndam yàlla mooy joxe ndam fal ak fal li ci loxo yàlla ne ab jaam nag sañ naa def tawasul ci borom kon nag ñaan nañ suñu borom lii ngeen di wut bu fekkee mooy li gën yéen a gën ci département bi yàlla na leen ko suñu borom jox bu dee lu gën la ci yéen yàlla na leen ko suñu borom jox yàlla mu doon seen kumpa te man de rafet naa njort ci yow baax a baax a baax te sama xel dal na ci yow baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah